wayaw dum wax ne keur elage ga joge ni de après war maa jóge kër elage yow ma joge keur elas ak ma ñak joge keur elas lan moy problème bi seetlu wo changement elas ci keur gi ben changement elas lan mo xew yow bet nga ma trop parce que xaaruma la won fi yow Fina xarit la kat bi daf doon wax naan mbëggeel daf lay maajloo mais man daf ma dawlo mais Fina arrête ah ok kon yow da ma bëgg a accuser man ak El bokkuñ te ku si nekk am nga sa vie privée. xam nga lu ma bëgg nga wax ma ban problème moo nekk ci yow ci suñu diggante sax laay wax lan la wax ma ma xam lan la. yaakaaroon ne tamit am na ku mu nekkal. El Hadj lay nekkal ku dul man. El dafa am dafa am dafa am gelu rab. gelu rab. si El Hadj dina may mën a la dajal. ci beneen adduna la may yóbbu. ci eh, beneen eh. monde ah. ma ngay sar nag ma ngay sar. daa indi eh, foo jëm. taxawal bon xale bi dama ko bëgg. ci xol bu nekkoon ci xol su ma ko lambee daj ko. <laughs> koy toogal daf lay may temps ci boppam mais hélas mayu ma benn temps te temps bu ma ko jox mu xañ ko boppam. moom daal lu kii nga xamoon man li may wax daal dafa mel ne léewoon na léppoon ci ma. rew nay moy lan yow nak ngay fekke ma teud di waxtaan ak nit nga ñew dima déranger waxtaan encore ah kon dina may mëna ñewati la eh bébé kan eh, eh yow eh jàngal na bébé fii ci biir kër gi ana bébé ci kër gi woy sama nday sama doom dof na nak la ila sama ya li ngay def ni yépp faju ko sa doom woy yaay sama doom dof na jogal ci kii de kii dof na yey ay sagal ko ko lay dof ak yàgg